siiw du jàmmi borom maa xam dara lépp lu yëngu yow la ñoo koy jiiñ fekke woo fent wax yu ñaaw amba ba mu bari su ñu fofu foofu dañuy démat ci benen ciow bi nga xamante doxna ci digënté ñaari talibé Serigne Saliou suñu né ñaari talibé Serigne Saliou Mbacke yenn xel yi day dem ci kii di Cheikh Amar di jëwriñu Serigne Saliou Mbacke bi nga xamante bi Ablaye Wade nekkee président de la République bokkoon na ci homme d'affaires yi ñu gënon ràññee fi ci Sénégal ak kan ki nga xamante di ministre nekk aussi ci nekkoon ci gouvernement Ablaye Wade ñu dippee ko Samuel Sarr Samuel Sarr ak Cheikh Amar nak ñom ñaar ñëpp di njabootu Ablaye Wade ba nopi doon ay talibé Cheikh Amar mais fan yi ñu génn coow li bari na trop trop trop trop trop seen diggante ñom ñaar ginnaw patron TSE bobu di Cheikh Amar bi nga xamante ni jamono yi 2000 yaakaar naa ni ba 2012. fepp fo dégg soirée de gala Cheikh Amar lañ ko tuddé fepp fo dégg cassette mbaa single Cheikh Amar lañ ci way fepp fo dégg artistes yeeg homme d'affaires yeeg jet setteurs yeeg célébrités yi chaque jour ñi ngi don rang këram foofa ca Oasis aussi muy ay bureau yi nekkoon fofu ca Almadi ba vendredi bo jot muy communicateur traditionnel di ay jet di ay artistes fofu lañ don taxaw ku ci nekk di sàkk ko walam ci lu mu doon joxe chaque vendredi dina won distribuer lu tollu ci ay 100 wala 150 150 millions francs diko maye di jàppale jaam na rawatina nag liggéeyu xelkom bobu ñu ragné won ko ci bu baaxa baax koku di Cheikh Amar et naa ni dem porter plainte Qui di Samuel Sar fofu ci procureur lutax Cheikh Amar porter plainte Samuel Sar fofu ci procureur ndax té néna ki di Samuel Sar daf ko yoral lu tollu ci ñaari milliards manam ñaari milliards naka la ko Samuel sar yoralee ñaari milliards Qui di Cheikh Amar néna Samuel Sarr moo ñëwoon ci moom ginnaaw bi ab Ablaye Wade jógee ci nguur gi ne ko Ablaye Wade kat nee na temps yi dafa nekk ay difficulté financière dafa bëggoon nga abal ko xaalis lu toll ci deux milliards dafa am ay dignitaire maanaam ay responsable politique ak ay chef religieux yu mu war a jox xaalis boobu ginnaaw loolu nag Cheikh Yamar doon yëkkati ay xaalis di ko ko jox maanaam si bu mu ko koy jox dafa amoon ay décharge yoo xamante ni kii di Samuel Sarr mi ngi ko ko doon signal Samuel Sarr di ko yóbbu ba xaalis bi tollu ci ñaari milliards ginnaaw loolu nag ba ñu tolloo ci at yi Cheikh Amar dem laaji xaalisam ginnaaw loolu nag la ñuy gis Samuel Sarr nee na yoralul dara kii di Cheikh Amar première question bi ñu njëkk a posé wu mooy dañu gis benn communiqué boo xamante ni ñu ngi ko tas ci presse bi maanaam yenn ci presse bi sax laay wax yenn ci presse bi ndaxte je crois que presse euh, interposée la da ngay gis presse bi bindal li Samuel Sarr presse bi bindal li Cheikh Amar la ñu gis ci presse bi communication bu Samuel Sar tontu nenañu Cheikh Amar des plaintes bii mu plainte Samuel Sar, né Samuel Sar daf ko yoral ñaari milliards Samuel Sar yoralu ko dara waaw bimu ñu waxé lool nak ñu xol ni que communiquer bobu kan moo signé di cellule de communication bu Cheikh Amar bor mo séq ci diggante Cheikh Amar ak euh, Samuel Sar, lutax Samuel Samuel Sarr tontulul bopam cellule de communication du ko tontul ñi foog ni wax ji fofu la am ñi gis ni ko wax bi di gëna a ba ñi démé ba ci bir ñi gis l'observateur aussi firndel deug jox deug ki di Cheikh Amar lebaloon na kii di Samuel Sarr lu toll ci ñaari milliards ci kàddu Abdoulaye Wade mais ginnaaw loolu Abdoulaye Wade dafa ne ñaari milliards yooyu moom gisu ko yëgu ko te tinu ko Cheikh Amar nag si la nee Samuel Sarr comme Abdoulaye Wade moo la yónnoon joxu xaalis bi delloo ma xaalis bi mais ci ginnaw loolu gis nañu Dakar Time bu Moodban moom it publier ben communiqué ak ben rapport bo xamanteni ki di Samuel Sarr Moko ko jox ba bâtonnier de l'ordre des avocats bu nek Côte d'Ivoire ci Abidjan def ben signature bo xamanteni moko moo signé xamal ni ni que xaalis Samuel Sarr jël ci Cheikh Amar manam Cheikh Amar dafa yorlon Ablaye Wade bor bu tollu ci neuf milliards manam Ablaye Wade moko lebalon lebaloon bu mu nekkee ci ay difficultés donc xaalis bobu lako don rembourser. kiko bind nak di Dakar Times bu ban ginnaw loolu nak l'observateur bind le contraire biñu ñu ba ci biir gis nañu chaque jour Samuel Sar mi ngi génnee ay communiqué ci presse bi ñi dem aussi ba gis Dakar matin bu Pape aussi firndeel ni que le Cheikh Amar wax moy deug ñi gis Dakar Time limu mu bind maanaam Samuel Sar mom nek ci deug ak yeneen communiqué yo xamanteni gis nañ ko ci leral.net point ñomit Samuel Sar lañ jox deug mais batay ji man personnellement comme ni may wax journaliste d'investigation là, ginnaw bi ma liiree communiqué yépp jël sama téléphone joko qui di Cheikh Amar mané ko problème bi la bëgg nous nu mon demee mu ne ma man dama plainte ci procureur yoral na ma wala yoraluma lu muy yàkkamti def ay porte presse di bind ay communiqué di ko signaloo ay cellule de communication chaque jour mi presse bi di bind moom samir sar moo ñëw ci man ne ma dafa bëgg nga abal ko lu toll ci 2 milliards dafa am ay chef religieux ak ay dignitaires yu mu koy jox Cheikh Amar nee na ma koy bindal ay chèque di ko jox xaalis di ko jox xaalis mu koy signé di ko déchargé te nee na ma yow Tange yow ci sa bopp fekkee nga benn jamono bi ma koy laaj xaalis bi delloo ma ko ñu dem wut intervention ci Serigne Cheikh saliw bi mu ñëwee foofu Samuel sar toog Cheikh Amar toog sëñ Cheikh saliw ne ko Samuel ah yéen ñaar ñëpp sama njaboot ngeen mais comme da nga leboon bor dañ koy fay delloo ko xaalisam Samuel sar jël engagement. كان مصري الشيخ صالح nekka man mii kat dina rembourser xaalis bi dina am benn partie bi mu ko jox yeneen dinaa ko def par tranche boobu ba léegi nag Samuel Sarr dugewu ci dara chaque fois su mu ko laajee xaalis bi moo tax ma dem ci procureur porté ji loolu ay kaddu Cheikh Amar la yu mu dëkkal ci sama nopp man mi ko woo téléphone loolu la ma Cheikh amaar wax waaye ginnaaw loolu daal gis nañ chaque jour Samuel saar mi ngi weddi en tout cas daal sénégalais yi nee nañu affaire bor la yéen ñaar a ko séq yéen ñaar ñëpp njabootu Abdoulaye Wade ngeen Samuel Sarr ci keppaaru Abdoulaye Wade nga nekk Cheikh Amar Abdoulaye Wade bu mu ñëwee jàpp jàppale na ko dimbale na ko ba mu gañe ay marché yu bare yéen ñaar ñëpp taalibe Serigne Cheikh Saliou ngeen yéen ñaar ñëpp taalibe Serigne Saliou Mbacke ngeen yaakaar naa ne mën ngeen régler affaire bi ci seen biir moo gën ngeen koy def presse interposée kii naan yoral naa ko kii naan yorul ma en tout cas bor daal suñ ko fayul aduna dinañ ko fay àllaaxira muy loo xamante ni doxoon na ci diggante Cheikh Amar ak Samuel Sarr mais jàppale ni que daal jamono ji au lieu que ñu dem ci procureur wuy ji si juge mais bataille médiatique lañ ko def bataille médiatique boobu nag kenn defu ko ku dul Samuel Sarr ndaxte Samuel Sarr mooy génnee ay communiqué chaque jour ci ay presse comme jamono ji nag dañu ne Sénégal ku nekk dafa am sa presse mais en tout cas Cheikh Amar nee na kii yoreel na ko Samuel nee na yorelu ko nañu xaar nag procureur la lay tranché. yëguloo fekke woo fent wax yu ñaaw